na xam wàccuñu suñu ànd mais dañu ànd ak jamono terewul ñu xool suñu gannaaw bi ndax li fi nekkoon moom moo ñu permettre démb moo tax tey am te te tey dañu mën a xool pour mën a pour futur bi ñu mën ko defar mais dañu nekk ay xale ànd ak jamono war a tegu si temps dëgg neexul dañu war a tegu si temps defar ba mu baax mais nag terewul de déraciné wu ñu de dañuy ñu ba léegi ñu ci source bi. du question de persister wala dara parce que dañoo basé suñu valeur suñu suñuy ak suñu tradition.

nga jël li nga xamante ne mooy positif mais bul jël li nga xam ne moo moo nekk sens négatif ba nar a sa bopp yow ki ngay imité xool ko moom nga xool sa bopp yéen ñaar yow côté ngaañ-ngaañ bi ci yow la ëppee que moom tey boo demee bi boo demee xoolal promotion canapé yi nga xamante ne loolu ni moom nga xale jigéen yi nga xam ne ñoo woowee seen bopp la génération branchée ñu ñoo branché ñu ñoo nekk au top ñu mën ci gën a santal. <coughs> benn changement de ndaxte problème amoon na seulement avant dafa dul woon siiw gars yi dañ ko defoon ci nëpp nëppal ak ci laaxatu amoon na de fii lu fi am lu ne jamono ci amoon na avant nit ñi ñoom ñoo xamul woon nan lañ koy classé mais lépp amoon na fi sax na waaw loolu dëgg la il faut ñu ñu xool segg mbir yi mbir yi il faut ñu segg ko parce que man damay wax ne y a des sur la planche il faut ñu segg affaire yi xool ko xoolaat ko parce que nit ki kenn kooku la doo dox sa ndaw mais pour gaañ sa bopp dox sa ndaw ak gaañ sa bopp te jafe-jafe opposé mais dafa am yenn yoo xamante ni lu rawatina doomu jullit man ci jullit yi gën a parce que boo gisee ñoom cosaan ak aada ñi nga xamante ne ñoo koy gën di dund comme jullit a euh, euh, jii seen i dañoo war a sol accoutrement boo xamante ne dafa décent mais mu nekk xale nekk ndaw mais mën nga sol sa taille maam petit taille maam léegi mu ngi def sa musóor tagal ngi dégg bu sa taille maam bu gudd bu ci ginnaaw def sa petite fànn bu ndaw

baa def c'est pour juste nous tromper seen ay parents nous on si confiance nous ñooy xar dëkk bi